ñu leen di dalal ci seen émission sociétale penc mi euh, ñu siy dalal nag euh, Ami Collé Ndiaye euh, di diplômée en journalisme nekk présidente bu ASCDG muy association sportive et culturelle pour le développement de Gamboul nekkit initiatrice bu concept bi ñu naan dundal sa tund ñu fas yéene nag waxtaan ak moom mbirum ASC yi ana naka lañu ñu mën a daal participer ci li nga xam ne moom mooy développement local euh, bu durable kon balaa ñuy sori rek xanaa ma bàyyi ko mu nuyonte ak euh, mbokku internet yi. Ndof maa fay sa nuyoo di nuyu mbokku nga xamante ne ñoom ñu seetaan ci seen info point net. Mm-hmm. Euh, sama laaj bu njëkk rek da ngeen bëgg a jugee ci li ñu naan ASC association. sportif culturel jëm ci AS ASCDG maanaam association euh, sportive euh, culturelle pour le développement léegi G bi nag peut être gàmbul lay dàkkantal muy dëkk ba nga xam ne kon yow yaa fay présidente euh, bu ASC bi ana naka la xalaat boobu ñëwee ngeen xalaat ne daal war ngeen dépasser ASC dem ci ASC boo xam ne pour développement. Ndof ni ko waxee noonu la dañu jóge si li nga xamante ne moo fi nekkoon. moo di association sportive et culturelle jëm si li nga xamante ne moom mooy association sportive et culturelle pour le développement ñu adopté nag li nga xamante ne moom mooy le terme développement pour mun a élargir suñu champ d' intervention suñu domaine d' intervention mm-hmm. donc qui parle de développement parle de religion de sport bien sûr de culture mm-hmm. d' formation sociale euh, ak yeneen i domaine donc loolu moo tax ñu ne pourquoi pas duñu adopter le terme développement ngir mun a amal ay action yoo xamante ne moo ñuy gën a mën a permettre ñu ñu dundal suñu suñu tund ñu développer suñu terroir mm-hmm. donc loolu moo tax ñu adopté li nga xamante ne mooy le terme de yokku ko si ASC bi nga xamante ne moom moo fa nekkoon mm-hmm. donc mujj ko def si au lieu de Gamboul mais nag ñu jël rek li nga xamante ne moom mooy G yokk ko si lool moo waral mu jóge si li nga xamante ne mooy ASC dem si ASCD donc G bi Gàmbul la muy gox bi nga xamante ne fa la ñu dëkk. Mhm. voilà c'est ça. léegi ana naka ngeen bugg a doxalee euh, bu fekkee ne bëgg ngeen ci indi ay coppite euh, nekk ay véritable acteur développement ana naka ngeen ko bëgg a waaw li mu nekkoon lay doon ba léegi coppeeku bi ci am rek mooy comme ni ma ko waxee léegi élargir suñu champ d'intervention voilà parce que association yi dañu gis ne dañu yem rek ci wàllum sport mhm. même culture bi sax néew na ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy développer mais dañu gis ne à travers la culture à travers cette culture war nañu mën a yaatal dem ci yeneen i domaine voilà donc yeneen i domaines yi nag li ñu ci demee moo di lañ dañuy rester ci culture bi wii ak euh, sport bi waaye li nga xamante ne moom lañ si am koppar yi nga xamante ne moom lay générer si noonee la ñuy duggee si wàllum social maanaam di amal ay action sociale waaye itam dem wuuti ay formation professionnelle indi ko fi nga xamante ne moom mooy suñu gox ngir ndaw yi mun see jëriñoo waaye hmm. itam fexe ba créer ay emploi naka la ñuy créer ay emploi ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo si nekk par exemple euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekkoon ay bonne volonté si vacance yi daan nañu joxe ay cours de vacances léegi ñu ngi xalaat ana naka la ñuy def ba ndaw yi nga xamante ne ñoo doon joxe ay cours de vacances volontairement bien vrai que kenn fayu leen mais naka la ñuy def ba ñoom ñu am as salaire puisque ñu ngi gàmbul liggéeyuñu ñu ngi xalaat naka la ñuy def bu am ay moyens comme ça ñoom aussi ñu mun di si am tuuti koppar mu nekk seen salaire en attendant hmm. donc loolu aussi création d'emploi la ñi nga xamante ne mën nañu jaay ñu ngi si xalaat pourquoi pas ñu am cantine fi nga xamante ne moom mooy école ba loolu dina sécuriser élève yi ba dootu génn di jënd waaye aussi dina créer li nga xamante ne moom mooy emploi si biir association bi donc loolu yëpp ñu ngi koy xalaat di si def ay jéego di ko tàggat pour mun ko amal mhm. voilà euh, ndax loolu day méngoog euh, concept euh, dundal sunu tund bi nga xam ne yaa ko initié exactement boo seetloo suñu programme yëpp ñu ngi ko wekk si boobule concept ndaxte concept boobee moom moo ñu permettre ñu mën a élargir suñu suñu suñu suñu sang parce que boo seetee ne contenu concept bi moom la ñu jël amaana def ko li nga xamante ne moom mooy programme yi ASC bi actuellement. ba tax ASC bi euh, amaloon na quatre si si vacances yi gannaaw sport bi ay activité culturelles waaye itam ay activités euh, euh, sociale lu si mel ni journée. journée pour raffermir. les, les, les, les relations sociales. Okay. Voilà, une journée de cohésion sociale. Okay. Voilà, c'est ça le mot ex exact. Mhm. C'est ça. Donc, loolu yëpp jot nañ ko fa amal loolu nag ñu ngi ko defee nan parce que Gàmbul bo seetloo am na ay gox yu ko yu ko wër lu si mel ni Kër Jokkel lu si mel ni nangan lu si mel ni yeneen i Gàmbul mais nag suñu Gàmbul moom mooy Gàmbul centre bi. puisque moom mooy Gàmbul centre bi que lu si ëpp foofu la ñuy ñëw ñu ne pourquoi pas duñ ko élargir décentraliser ko. di génne suñuy activité si gox goxaan yooyu nga xamante ne ñoom ñoo composé Gambul loolu moo waraloon ñu amal li nga xamante ne moom mooy tee débat fële si Gambul Kër Jokkel voilà loolu nag population bi apprécier nañ ko trop parce que boo seetloo am nañ si contenté à chaque fois di ko manifester ba tax suñu mobilisation actuellement dafay yomb waaye itam bi ñu jógee fi nga xamante ne moom mooy gàmbul Kër Jokkel dañu dem fi nga xamante ne moom mooy Gambul Nangan Fali Thiam amal fa une activité de pêche parce que ñoom seeni activité si si si géej gi la seen activité principale moom mooy wàllum napp donc ñun aussi ñu jóge Gàmbul àndandoo ak ñoom sóobu woon ak ñoom si géej gi napp ay jën donc loolu yëpp day wane ne wax dëgg yàlla mhm. ñu ngi def ay jéego si wàllum social si li nga xamante ne moom mooy boole te boo seetloo association loolu mooy objectif principal am mu di boole nit ñi boole xol yi comme ça euh, suñu jëfee mu gën a am effet mu gën a am porté parce que li kenn di def ñaara ko ko mais nag boo fexee ba ñëpp booloo nag wax dëgg yàlla yaakaar naa ne si lay gën a am résultat que ne bu ñenn ñenn di defandoo donc suñu objectif principal mooy boole ñëpp fédérer tout le monde c'est ça jouer li nga xamante ne moom mooy un rôle euh, d'adhération voilà un, un rôle de fédération de de médiation je peux je peux dire ça comme ça ba ñëpp mën a booloo def say ba lu ñu dugg rek euh, mu sotti donc loolu aussi si suñuy objectif principal la bokk te suñu objectif principal boobu en principe moom mooy objectif yi association. Mhm. Euh, octobre début octobre gis nañ ngeen amal cérémonie de clôture bu seen activité de vacances yi euh, ndax mu nga ñu ñëwalaat ana ci activité la woon. waaw ginnaaw bi nga xamante ne def nañu suñuy activité de vacances mhm. suñuy activité suñuy activité de vacances nag navétane amoon na si organiser tournoi si suñu gox waaye itam bokk si yeneen tournoi yi nga xamante ne moom la ñuy organiser si suñu tund voilà maanaam si localité bi ak si commune bi ñu bokk mu di la commune de de de Thiomby voilà bokkoon nañ aussi si phase zonale bi nga xamante ne moom lañ doon amal foofu si Thiomby donc suñuy activité de vacances sport bokkoon na si waaye itam wàllum culture bokkoon na si c'est ça des fois ñu organiser ay ay ay ndaga ay ay ay ngoyaan voilà des fois ñu organiser ay sketch wax xale yi suñu suñu cosaan naka la ñuy def boo dajaloo c'est ça jàngal leen ay woy ay chant ay danse loolu yëpp ci culture la bokk voilà waaye yeme yemalewuñu ko foofu laal lañ li nga xamante ne moom mooy éducation la formation parce que wax naa ko sànq ñu ngi doon joxe ay ay cours de vacances voilà donc boo seetloo loolu yëpp nag lañ doon clôturer mu di wane suñu bilan bi nga xamante ne euh, moom la ñu amal ci ci ci yi ñu weesu waaye nag bu loolu weesoo aussi si biir cérémonie bi ñu profité aussi lancé officiellement li nga xamante ne moom mooy le concept dundal suñu tund mhm. di concept boo xamante ne objectif am moom mooy développement local parce que dundal suñu tund signifié wu lenn lu dul euh, développer notre terroir donc mhm. loolee la signifié donc suñu objectif moom mooy développer suñu localité c'est ça donc mhm. c'est un concept de développement local mm, ngeen développé ko naka maanaam développement woote ana ci lan ngeen bëgg sukkandiku pou amal euh, si li ñu bëgg a sukkandiku mooy l'animation territoriale surtout si loolu lañ bëgg a focaliser wu animer suñu territoire si naka si formation professionnelle si si si création d'emploi si si culture wàllum culture di organiser ay journée de culture pourquoi pas des nuits de culture comme ni ñu koy defee si yeneen i gox liñ gën a favoriser daal si liñ gën a apaisanté wu moom mooy l'événementiel c' est ça su ko defee suñu defee événement euh, koppar yi nga xamante ne dina ko générer li ñu si am ñu xool lan lañu war a mën a def si dëkk ba loo xamante ne dina jëriñ ñëpp donc suñu amalee suñu activité bénéfice yi nga xamante ne dinañ ko si am profil yi ñu si am dañuy xool par exemple ne euh, jumaa ji manqué na ay kaamil wa ila rajo bi euh, doxatul nañu dem defar ko sinon ñu def set setal peinturaat suñuy garab pour gën a taaral suñuy suñu suñu dëkk sinon am na làmp bu yàqu fee ñu jël ko si suñu koppar defar ko loolu yëpp bokk na si li nga xamante ni moom mooy dundal dund mm-hmm. voilà c'est ça donc si loolee lañ bëgg wékk suñu suñu suñuy suñu suñuy action si loolee lañ bëgg a wekk suñuy activité voilà c'est ça bu amee koo xamante ne amaan na néew na doole ñu mën ko dimbali mu nekk fa pourquoi pas ñu dimbale ko Mhm. voilà donc loolu nag euh, lu ñu koy permettre mooy ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy les force vives de la localité ñoom ñëpp nag ñu dugal ci seen loxo boo seetloo sax euh, amaan na ci cérémonie bi amoon nañu budget boo xamante ne bi ñu ko présenté jaaxaloon na ñu bari waaye nag euh, am koppar yi jafewuñu woon parce que xam nañu yoon wi ke Gamboul macha allah bien vrai que c'est un petit village de par sa démographie ou bien voilà de par sa je ne Euh, euh, on peut dire euh, démographie oui mais par de par sa composition maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko composé Gamboul village bu mag la parce que am nañ ay cadre ñeewuñu benn gox si cadre wax dëgg yàlla. parce que voilà ku si mel ni Diène Farba ku si mel ni maître voilà ak yeneen i cadre yoo xamante ne amaan na maître Moussa Sarr la ñu xam ak Diène Farba parce que seen statut moom moo permettre ñu xam leen. Mm-hmm. waaye nag am na yeneen i cadre yoo xamante ni ñu ngi def si suuf nous avons des magistrats des doyens. de euh, des douaniers autant pour moi c'est ça des commissaires donc loolu yëpp moo ñu permettre ñu mën a am koppar yi nga xamante ne moom la ñu soxla woon du ma fàttali nga xamante ne moom mooy le grand entrepreneur mu di Mamadou Diop. c'est ça Diop Isaac mu ngi fàttali ne moom aussi gàmb la dëkk donc am koppar yi wax dëgg yàlla euh, jafewuñu woon wax dëgg yàlla c'est ça euh, ah, anaan ngay tëjee waxtaan bi rek voilà li may tëjee waxtaan bi amaan moo di Euh, di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu mën a am yooyu lay euh, koppar ku si mel ni maître Moussa Sarr d'ailleurs moom mooy suñu président d'honneur parce que nag ay ndaw bu ñu dajee wax dëgg yàlla bu ñu dajaloo dañuy fekk bu am dañuy fexe boo ay mag nekk ci seen biir mm-hmm. donc ñun euh, li ñu li ñu li ñu njëkk a def mooy fexe ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy magi dëkk ba ñëw fekk si ñu mu di jigéen mag ak ndaw c'est ça loolu moo waraloon surtout ñu def cérémonie bi waaye itam defu ko ñi nga xamante ne noonee lañ ko defee bien vrai que am na ñu naan sax koppar yi ñu si def dafa ëpp mu munoon nañoo euh, sakkanal tuuti mais nag objectif bi moo nekkoon d'abord attirer nit ñi ñu am aussi visibilité c'est ça après leneen yëpp incha allah euh, dina ñëw donc dëkk bi yëpp kontaanoon nañ wuy suñu si li nga xamante ne moom la ñu woote waaye itam ma fàttali leen benn mbir Euh, c'est vrai que am nañ ay cadres mhm. euh, de haut niveau am nañ ñoo xamante ni bëgg nañoo def si dëkk ba mais si lan nga leen di woo pour ñu def si am na ay jeunes ay ndaw yuy taxaw d'habitude naan par exemple diw defu fi dara mais si lan nga ko woo mu def si ke defu si donc mhm. damay ñaax ndaw ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite ay association euh, bu ñu dematee bay présenter kilifa activité nañ ko def projet defar seeni ay TDR def si lépp parce que instant yi temps amul par exemple j'ai pas besoin may dem si maître Moussa Sarr nañ ko lii lañ bëgg a def lii lañ bëgg def di étaler il suffit juste ma def samay terme de référence ñëw présenté ko ko après boo amee temps dina fouiller lire loolu mooy permettre mu xam moom naka lañu ñu mën a jàppale par exemple tey si j'ai besoin de un million six cent cinquante bu liiree document bi dina xam ne kii kat amaan na un million six cent cinquante la soxla su ma ko mënta jàppalee lépp nekkul ne par exemple benn deux cent cinquante mille laa ko war a mais amaana dinaa yëkkati cinq cent mille wala un million jàppalee ko donc dama bëgg rek juste ndaw ñi bu ñu amatee ay projet ñu desale ko ba mu leer naññ ke bu ñuy waati woo ci kilifa yi si liñ leen di woon a nekk loo xamante ne lu leer lay doon lu précise lu ñu xam d'abord et puis ñu wax naka lañ ko bëgg a defee voilà parce que dama bëgg a desandi d'abord si cérémonie bi si cérémonie boobule mm-hmm. amal nañ si li nga xamante ne moom mooy panel panel lañ fa amal jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñi ndaw ñi ñu leen ñu doon waxtaan ak ñoom si li nga xamante ne moom mooy la crise des valeurs et le fonctionnement sociale muy li am muy lu am solo ndax méngoo naag li nga xamante ne moom moo xew si jamono parce que réseaux sociaux yi tax na mhm. ñu si bëri xamatuñ fan la ñuy teg seen i tànk euh, euh, àdduna ni mu demee tax na na parents yi amatuñ jotu yaan euh, voilà c'est ça donc loolu noonu yëpp boole nañ ko si suñu cérémonie donc amal euh, euh, panel comme ni ma ko waxee waaye itam mu nekkoon début d' octobre ñëpp xam nañ ne le mois d' octobre est dédié aux malades du cancer. loolu moo taxoon ñu amal li nga xamante ne moom mooy conférence sur la prévention du cancer du sang et du col de l'utérus noonu la ñu wooyee ki nga xamante ne moom mooy CODD moom aussi euh, acteur communautaire la. Mm-hmm. mu ñëw waxtaan ak ak jigéen ñi voilà si naka la ñuy def bo boo moytu. feebari cancer donc suñu activité déjà à travers cette conférence mun nañ ne santé bokk na si parce que ñu ngi fexe boo jigéen ñi di dem di caytu seeni wirgu yaram donc loolu aussi lu am solo la lu am solo la mun naa ne kon suñu champ euh, d' intervention élargir nañ ko aussi si wàllum santé du ñu ay docteur naamte munu mënuñu leen a fayal amaana si si hôpitaux yi waaye nag dinañ ba buur leen ñu mm. mun a dem euh, si bérébu fajukaay yi mun a saytu seen yaram mm. indi fay ay nit pour mu waxtaanal leen prévoir nañ li nga xamante ne moom mooy don de sang mais malheureusement sottiwul xam naa ne beneen yoon incha allah voilà bu weesoo don de sang bi lépp li nga xamante ne dëxuñoon nañ ko si kayit gi maanaam TDR yi Dieu merci jot nañ ko defal jot nañ ko euh, euh, def parce que lu weesu loolu aussi décerné nañ ay ay ay trophée voilà ay trophées de reconnaissance ay trophées de remerciement ñi nga mhm. xamante ne ñoom ñooy les acteurs de développement local voilà ku si mel ni maître Moussa Sarr ku si mel ni Diène Farba ku si mel ni Massène Sène voilà ñoom laa mën a lim parce que émission la tu vois mënoo lim ñëpp ku si mhm. mel ni Mansour Diouf beneen yoon dinañ jox ñeneen i acteurs de développement local ay ay trophée loolu euh, day day day tax ñoom aussi ñu am cawarte si li nga xamante ne ñu ngi koy def parce que mm. nit bu lay jàppale aussi da ngay wane ne mu ngi may jàppale que loolu aussi dina wane ne nous sommes à la hauteur bien que nous sommes des villageois si benn village lañu nekk village bi reyul gàmbu la tudd mais pourquoi pas je me dis lii xew ailleurs mënul xew gàmbu si c'est possible comme ni ko monsieur Diop wooyee. Mm. c'est un petit village bi mais Gamboul village du monde. donc lépp lu nga xamante ne mu ngi am ci monde bi loolu lañ bëggoon wane ne mën na am Gamboul donc je me dis que événementiel yi nga xamante ne ñu ngi koy euh, euh, organiser au niveau national pourquoi pas mën nañ ko organiser au niveau local. oui c'est possible parce que suñu cadre yi tey ñu ngi dem ñu leen di tuddee ay événement yu mag. Mm-hmm. si si si yeneen i gox. Mm-hmm. amaana ñun buñ góorgóorlu woon boo organiser ci suñuy gox. tu vois donc koppar yi nga xamante ne ñu ngi koy yóbbu foofu dinañ ko indi si suñu dëkk donc li may waxaat foofu mooy nañu fexe bay woo suñuy cadre suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy nit euh, voilà c'est ça euh, si loo xamante ne euh, lu am solo la loo xamante ne wax dëgg yàlla am na am na am na solo bu ye bu yem ak seen dayoo vala su ko defee ñun aussi dinañ mën di am satisfaction loolu moo waraloon ñu defar ay trophée c'est ça parce que ñu joxe. mettre Moussa Sarr ailleurs trophée oui il sera content et tout mais pourquoi pas ñu joxe ko ko fi nga xamante ne moom mooy dëkkam parce que ku ne xam na ne maître Moussa Sarr du wax mu ko daaneel ki tuddul fi nga xamante ne moom mooy moom mooy Gamboul mm-hmm. euh, voilà euh, euh, Mamadou Diop Isaac aussi même chose voilà donc doomi Gamboul yi aussi dañuy war di manifester cofeel si moom si ñoom voilà di wane ñoom kat wax dëgg yàlla njëriñ li ñu am seen dëkk ñu ngi koy jëriñoo voilà ñoom aussi ñu am reconnaissance si ñoom mm-hmm. donc loolu yëpp lañ jëloon tënk ko wax dëgg yàlla bëggoon ko amal que Dieu si atteindre nañ suñu objectif donc li des mu ngi si suñu kanam incha allah dinañ gën a def ay jéego pour def yeneen i activité voilà xam naa ni en perspective mën naa ne six mois de de de décembre bi incha allah mm-hmm. parce que dundal suñu tund la ñu wax bien vrai que association yi d'habitude euh, temps de vacances la amal seen i activité après bu école tëjee c'est c'est fini daanaka je ne dis pas tout le monde mais quand même bëri na si ñoo xamante ne euh, vacances rek la ñuy yëngu si ay nawetaan ak ay activités culturelles su mel ni organiser kermesse fii soirée fii voilà. da ngeen bëgg da ngeen bëgg inverser tendance boobu. dañu bëgg inverser tendance bi ke dundal suñu tund bi dañu bëgg ñu lancer ko si yeneen i gox. dañu bëgg euh, montrer la voie aux autres associations wan leen ni wax dëgg yàlla dafa jot. acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, dans le sport dans la culture di yëngu si si si si si lu weesu sport mm-hmm. ak ak ak culture bien vrai que sport ak culture day day booster développement mais pourquoi pas ñu élargir ko parce que gis nañ si Covid bi si pandémie bi voilà euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy docteurs yi dañu lëkkaloo woon ak association yi su ko defee di ñuy ñaax nit ñi pour ñu dem ñekku ci donc euh, jot na. Euh, les acteurs euh, euh, du sport wane ne wax dëgg yàlla ay dëgg-dëgg acteurs de développement local lañ loolu nag pour ñu pour ñu dëggal ko faw rek ñu élargir seeni seeni seeni seeni champ d'intervention si si fornaa si wéyi bay que ne bëgg nañu yokk li nga xamante ne moom mooy e économique si ASC yi mais ñun wax dëgg yàlla nous avons vu plus large c'est ça ñun dañu jàpp ne mm-hmm. euh, euh, le terme de développement et moom moo ëmb lépp bàyyiwul dara parce que mën nga ne économique keneen ne social mais boo développement rek lépp mu ngi ñun loolu mooy suñu suñu suñu suñu gis-gis mm-hmm. euh, voilà c'est ça waaw que dina nekk benn déclic ba tax laal ay kon jeunes yu bëri jeunes gox yu bëri waaw en tant que jigéen ñu gis nga nekk jigéen ñu jël teg la ci li nga xam ne moom mooy euh, bopp ASC muy loo lu raar la euh, li ñuy gisee ASC yëpp ak euh, noonu d'habitude dañuy gis ne góor moo koy jiital ana lan moo tax peut ñu gis tey jigéen bu mel ne yow jël la teg la ci kanamu association boobu. alors Ndour ni nga ko waxee noonu la amaan na jafe na ñu gis jigéen si li nga xamante ne sax moom mooy bureau ASC yi jigéen bokk si rawatina nag ay góor dajaloo def la li nga xamante ne moom mooy seen président. Euh, voilà donc euh, euh, di ko sant yàlla rek parce que jàpp naa ne honneur la waaye nag honneur boo gis dafa am lu tax amaana ñoom bu ñu fi toogoon dinañ gën a mun a tontu waaye mun naa indi seen i kàddu ginnaaw ba ñu ma fale li ñu indi si man ay kàddu mot dañu gis ne mën nga ko mën nga ko parce que lu góor mën lu nekk jigéen mën nga ko mën na ko loolee ngay wane loolu ngay dégager te lu ñu mës a nekk rek fekk nga ñu si donc loolu moo tax bi ñu dajaloo amal assemblée générale d' ailleurs man nekkuma fa woon dañu ma woo téléphone wan ma ne yow la ñu tëbb suñu présidente ASC donc ma posé leen question président d'honneur wala ñu ne ma non non actuellement yow yaay doxal yaay ami affaire yi mu sa loxo mm. euh, désormais yow yaay suñu président suñu présidente voilà donc affaire yi noonu la ñëwee si man donc man aussi maa ngi def sama kéem kattan namte yombul. Mhm. jiite ay jigéen sax yombul rawatina nag nga jiite ay góor. ki euh, je dis ay góor parce que association bi mun naa ne ay góor kese la woon ba ñuy amal as euh, amal assemblée générale bi benn jigéen nekku fa woon. voilà ñoom ay góor ñoo daje nekk ay ndaw euh, waaye itam am ñoo xamante ne ñooñu ñoom ñooñu mag ne am ay doyen. mais Saleng ma nettali ba ñu waxee ne dañ ko bëgg a jox Amy Ndiaye amul kenn koo xamante ne nee na déet ñoom ñëpp rek dañu àndandoo ne waaw mën na ko doxal donc may ñaan yàlla yaakaar bañ a yaakaar boobu nga xamante ne am nañ am nañ ko si man euh, ma am si lu weesu seen njott voilà yóbbu association bi fu weesu seen njott d'ailleurs lool moo tax sax nag ñu jëlee ko si ASC yóbbu ko si ASC DG wane na nag wax dëgg yàlla jot na ñu jéem si def lu si kenn defuloon que Dieu merci ñëpp ñu ngi si ànd ak man di ma di ma di ma dooleel bien vrai que jiite euh, neexul jiite mbooloo neexul parce que ku nekk ak sa niveau d'esprit ku nekk ak ni ngay gisee ku nekk ak ni ngay xalaate bien vrai que bu ñëpp ne waaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon si assemblée générale bi am na ñeneen ñuy taxaw ne jigéen ñu jiite waaye tontu ba moo nekkoon rek ne jigéen bu mu nee li góor ñi mën wa ilaa lu ñu mënul parce que yéen ñii di wax naan jigéen ñu jiite lam si mën mënu leen mënu leen ko si kon jigéen moo ñuy jiite ma koy sant yàlla bu bu baax a baax a baax di waxaat ne alhamdulilah honneur la pour man que incha allah dina def kem kattan ba honoré ko incha allah bu soobee yàlla. waaw ñu ngi lay ñaanal it kon ci may la ci ndam. aussi itam di ñaan comme vision bi nga xam ne am ngeen ko. Mm. Euh, pour daal euh, benn développement local durable mu nekk benn déclic boo xam ne kon. dina laal peut-être yi nekk ci ci Sénégal gi maa ngi lay jaajëfal bu baax euh, Ami Collin Ndiaye di fàttali nekkoon euh, journaliste nga nekkit euh, président bu association sportive culturelle. association sportive et culturelle pour le développement <laughs> pour le développement de Gamboul di sa dëkk di la jaajëfal kon di jaajëfal itam mbokku internet yi nga xam ne kon ñu ngi ñuy bàyyi xel saa su ne di leen jox dig daje kon lu yàggul dala rek ak beneen invité.